Ah, ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. di rafetlu invitation bi. Mm-hmm. di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi. Mm-hmm. Euh, ñoo nga fekk ñuy wax ci politique balaa madame Diom di dem yow yaa ngi ci politique bi waaye euh, li ñuy waxtaanee tey moo di euh, jigéen ñi ci biir politique l'action des femmes noo ko gisee. waaw action des femmes dans la politique. Mm-hmm. c'est quelque chose de noble. parce que jigéen ñi ci société bi lañ bokk. Mhm. am nañ ci cër. Mhm. boo xamante ne société bi dans son ensemble moo leen ko war a jox. Mhm. am na lu ma jot a déglu sànq ci échange yi ngeen doon am fii. mais yaakaar naa ne que la question des femmes c'est une question globale. Okay. c'est une question globale et il faut pas qu'on à récolter ce que l'on n'a pas semé. maanaam jigéen ñi. bu fekkente ne au niveau de l'élite peut-être dinañ gëm a mën a développer ci kanam. bu mm-hmm. fekkente ne bëgg nañu ñu am fu ñu yegg. Mm-hmm. il faut mu tàmbali quand elles sont petites filles c'est-à-dire que égalité bi. équité bi foofu la war a tàmbalee. Mhm. ce qui fait que petite fille ak petit garçon yi. <laughs> mën a mën a mën a mën a am les mêmes chances. Mhm. <laughs> Mhm. non non allez-y allez-y c'est que madame Diop mooy mooy sànni mooy sànniwaale benn picc Birama quoi. waaw ah <laughs> non allez-y continue. donc c'est c'est pour ça que je dis que c'est une approche globale. qu'il faut avoir. parce que dañu nekk ci peut-être société boo xamante ne. Euh, moi j'ai toujours euh, l'habitude de dire que les hommes sénégalais sont des hommes gâtés. maanaam euh, sénégalais yi. ñun daanaka góor ñi ñun dañoo dañoo aakimoo lépp. Mm-hmm. jigéen ñi nag xëy na mu am fu mu sooxee ci xëy na fi ñu waroon mën a yegg ci société bi ak place bi leen société bi waroon mën a jox. Mm-hmm. donc yaakaar naa waxtaan bu yaatoo yaatu la. Mm-hmm. boo xamante ne vraiment il faut ñu impliquer si tous les acteurs. Euh, cosaan bi ci la war a bokk. Euh, religion bi ci la war a bokk. élite bi ci la war a bokk. repères yi ñu xamante ne am nañ ko comme femme au Sénégal depuis toujours mhm. on peut donner quelques exemples mhm. euh, Maam Jaara Bousso bu Poroxaan c'est un exemple mhm. euh, Aline Sitoé Diatta c'est un exemple euh, Mariama Ba c'est un exemple Eugénie Aw c'est un exemple donc am na un rôle majeur boo xamante ne femmes yi yàgg nañ ko jouer ci suñu société dañ ko wanewul mais aujourd'hui il faut que l'opportunité soit plus grande pour toutes les petites filles pour que ñu mën a aspirer à jouer un rôle majeur mmh. pas seulement dans la politique parce que politique aussi c'est un choix c'est un engagement mmh. qu'on prend c'est une conviction boo xamante ne c'est un choix personnel mhm. yow yaay jël choix wu engagé wu ci politique mhm. mais même bu fekkente ne yënguwuloo ci wàllum politique en tant que femme am na cër boo xamante ne société bi ci boppam mhm. moo la war a dérouler le tapis boobu pour que nga mën koo mën a atteindre say